wa inni u'iizuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytaani rajiim rabbi a'uuzu bika min hamazaati shayaatiin wa a'uuzu bika rabbi an yahduruun yaa hayyu yaa qayyuum yaa dhal jalaali wal ikraam assalaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh ñu ngi nuyu mbokk jullit yi mbokk yi nga xamee ne dañuy teelu jotaay bi yëpp leen nuyu nuyu bu lislaam di nuyoo bu sell nuyoo bu am barke di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala suñuy kàddu fekk leen ci jàmm ak yërmande yàlla ak ak njéggalam ginnaaw suñu nuyoo ñu delsiwaat suñu jotaay yi yóbbulu ndaw ñi comme niñ ko baaxoo defee muy jotaayu xam-xam di jotaayu fàttali ak jàngale mu mel ni ñu ngi woon ci sunu téere bi ñuy wax tasawadu sixaar jàngale woon nañu sunu bind yu mujj lan mooy farataay tiim ak tiim ci boppam naka lañ koy defee ak ay sunnaam kon dañuy ñëw nag ci jàngale lan mooy farataay koor ak ay sunnaam mu ne fas faslun li ab dogla la fi siyaami ci koor siyaamu na sunu koor lahu ñeel na ko faridataani ñaari farata bila ziyaadatin ci lu dut ndollin wala noxsaan du caagina wàññi niyatu na mooy sunu yéene wa kafu naa ak sunu fegu an muftiraat wali fooy dokkoor ya li wajhi baaxin ñeel yàlla mi aji des ja mut'imin kay aji leele bi baat ci yu ya mu nekkat farataay koorkat ñaari farata rek la ci gàttal ñaari farata yooyu nag ba ci njëkk mooy yéene kon bépp jaamu yàlla rek faw yéene da cay jiitu kon nag la ci njëkk mooy yéene woor mooy njëkk yéene nag day tàmbalee ca guddi ga tàmbalee fa jant ba sowee ba fi fajar gi xare ba fajar gi fi mu xare kon nag loolu diggante boobu yépp mënees na faa yéene kon mënees naa fanaanoo yéene gi mënees naa bàyyi ba fajar gi jot nga yéene ñaar yépp dina baax bu dee nag kooru ngaat ngal ci ngiru imaamu Malik nag dañuy bëgg bu doon nit ki tey dafa doon sikki sàkka ci woor gi di sikki sàkka ba fajar gi jot boobaa mën naa baña woor waaye tamit day mën naa lekk mën naa naan ànd nit ñi bu dee weeru weeru wooru weeru koor nag day laaj ne nit ki bu fekkee dafa yëgut ne woor weer wi feeñ na démb mu toog ba bëccëg mu yëg ne weer wi feeñ na bu boobaa day bàyyi lekk bàyyi naan ngir suturaal weeru koor wi te teewut koor bis boobee daf koy fay kon bi ci njëkk mooy yéene ñaareel ba mooy fekk sa bopp ci lépp loo xam dafay dog koor lu mel ni lekk ak naan lu mel ni jaxasoo lu mel ni xeeti tux ak yu mel noonu yépp nga wàcc ko ci lépp loo xam te ni dafay dog koor rek nga wattandiku ko kon boobu mooy ñaareel bi kon ñaar yooyu mooy ñaari farataay koor lépp nag nga def ko ngir jëmm yàlla sa boroom subhaanahu wa taala yàlla mi nga xam te ni képp ku jëf ngir moom ci misaal nga woor lekkoo naanoo ngir jëmmam rek boo ëllëgee yamal xiyaam dina la ko fay fay gu tedd fay koo xam te ni teraanga yu réy lay doon ci àjjana ju tedd ja ju kawe ja mu ne mas nuunu ay sunnaam salaasatun ñett la indal labib fa aji xelu ja tax jiilunal futuura mooy gaawe dog min baxdil xuruub ginnaaw sow jant ba wasaani ñaareel ba taaxir soxoori mooy yeexe xëdd laylan ca guddi ga saalisuha aj ñetteel seen kaful lisaani mooy fekk làmmiñ wi xaw xawlan ci wax kon ñett yooyu mooy sunnaay koor ba ci njëkk mooy gaawe dog bu jant bi sowee rek nga dog bu la leeree ne jant bi na dog jot na nga dog bañ fay nekk di yeexe dog gi kon loolu sunna la te boo dogee ba pare dog lu dogee loo xam te lu woyof lay doon lu mel ni tàndarma tàmm nañ ko ci wala lu mel ni ndox walla xeet yu mel noonu boo dogee ba pare nag dem julli jigee door a ñëw ndogu ndax dañuy bañ nga dog bu pare topp ci ndog li ba juddi gi weesu kon dangay dog lu woyof gaaw dem julli ji timis ko defee nag nga door a dellusi nag ci sa wàllu ndogoo xeet yi mel noonu mu ne ñaareel ba mooy yeexe xëdd gi booy xëdd nga bàyyi ba ci kaar gu mujj ga nga xëddee ca bañ a xëdd rek ci guddi gi guddi gi dañuy bëgg nga bàyyi ba nga xamee ne xëdd gi ak li xëdd li tax xëdd weesu day mat fukki minit ak juróom wala ñaar fukki minute nga xam ne boo xëddee diggante boobu di nga toog ñaar fukki minute wala fukki minute ak juróom xëdd doola weesu ci kon ci jamono yooyu lañ ko gën a taamu ñetteel ba mooy fekk sa làmmiñ ci jëpp wax wax ju ñaaw wala wax ju amul njariñ nga fekk sa làmmiñ di wax rek lu am njariñ walla nga noppe ndax am na jamono yoo xamee ne wax ci lu baax wala jëf ci lu baax jëf ju kawe lay doon waaye nag jëf ci aw safaan tamit noonu lay rëyee kon jamono yooyu jamono yu jara bàyyi xel la kon ñett yooyu mooy sunna ci koor mu ne faslun lii ab dog la fi zakaati ci azaka am zakaatu ndaal azaka fal faraidu ay farataam laxa ñeel na ko tu def na ko lim arbaxan muy ñent faraaxi nga sàmm kullaha yéppam mu nekkat kon asaka ay farataam boo ñeent rek la kon asaka ñeenti farata la am xul waxal niyatun tamaam niyatun mooy yéene tamaamul xawli ak matuk at wa tamaamu nisaabiha ak matuk nisaabam adamu li ak ñàkk a toxalam zaali tamaam mooy mat gi mu ne kon ba ca njëkk mooy yéene kon boo xoolee yéene moo njëkkan ci weeru koor wa waaye yéene moo njëkk ci asaka ji kon yéene boo xoolee jëf yëpp muy jëmi lislaam jëf yu baax yëpp yéene moo ci war a njëkk kon ba ca njëkk mooy yéene mooy yéene génne asaka ji boo koy joxe nga fas yéene lii ngay joxe nga xam ne asaka la nga yéene koo génne waaye nag ataka asaka mat kenn du ko génne lu dul wala kon sax du war lu dul dafa mat am at faaw mu mat am at waaye tamit faaw tamit mu mat nisaab maanaam dayoo bi nga xam te nii bu fa alal tollee wala xeet yu mel noonu yi ñuy génne asaka dafa am dayoo yoo xam ne bu fa tollee ci la ñuy mën a door a génne asaka di war kon nag faaw tamit mat nisaab boobee kon mooy ñaareel bi mooy yéene ak matum at ak mat nisaab bi xadamu naqli ak ñàkk toxal ga zaali tamaam mooy mat ga ak ñàkk toxal ga nag boo ko déggee mooy asaka ji boo koy génne danga koy génne ca fa nga nekk nga xool ñaka fa yeyoo nga jox leen ko dañuy bañ nga toxal ko ñëw fi nga koy génnee am ñoo xam soxla dañ ko fa nga jële ko fa yóbbu ko feneen foo xam ni am donte am na ñaar ñu ko sax waaye fi nga nekk dañuy bëgg nga génne ko fa bu mënta ñàkk bu mënta ñàkk nangu nañ ne ci misaal ni boobu boo nekkan fu mel ni Europe doon génne asaka xam nga ne waa Sénégal ñoo ko gën a yayoo waaye am na ñu nekk Europe foofu tamit te yayoo nañ ko kon boobaa danga koy joxe leen li foofee ci Europe li ci des nga yóbbante ko fii Sénégal ñu joxe ko fi kon boobaa loolu dina baax matug nisaab bi tamit moom mooy buñ nee alalkat lu toll nii boo ko ci amee dangay génne asaka kon feeg matul loolu doo génne te tamit loolu dina mat ci yow lu toll am at nga door a génne asaka yi mu ne suma la topp ñel na ko xat zakaru goog tudd na ko aadaaba ay teggin salaasatun yëri ñett def na ko amal def na amal asawaaba yool waxiye te moom tiibu nafsi mooy teewu bakkan fii haa ci moom summa an takuuna topp mu nekk min wasatil maali ci la gën a baax ci alal ja wala ci diggu doomu alal ja wala la nga xam ne moo gën a nekk ak tànneef ci alal ja ay su xan fu fi gaaree saalisu haa aji ñetteel seen asatru mooy suturaal anil uyuni walif bay walif badiya xawfar riyaa ngir ragal ngistal al mufdi bay aji bijji li xay bi diini ñeel ayibu diine yi mu ne kon kon asaka am na ay farata waaye nag amut ay sunna moom li ma am mooy ay teggin kon mu li def ñetti teggin yoo xam ni asaka am na ko ba ca njëkk moo lim ne mooy tiibu nafsi mooy teeyu teeyu bakkan boo koy joxe nga joxe ko sa teeyu bakkan nga xam ne dangay yéene joxe asaka waaye nag bu ko joxe ci ak mer joxe ko joxe boo xam te da nga naan kat <coughs> da naan kat lii su ma ko joxewutoon mën naa yokk sama alal wala su ma ko fi bàyyi woon sama alal ji dina gën a bari déedéet da koy joxe ci sa teewu bakkan xam ne lii kat suñu borom moo la ko sant muy lu war loo war a joxe mu génne ko joxe ko kon loolu moo tax ñu ne teewu bakkan bokk na ci ay teggi la mu ne bokk na ci ay tegginu génne asaka ba tey boo koy génne danga ko génne ca diggu doomu alal ja na nga xool ca alal ja la gën a baax nga xool ca la gën a baax nga génne ko ndax bu doon alal am na xaalis yoo xam ne danaa nekk ay catégorie da ngay xool kon catégorie ga nekk ga gën a baax nga génne ko ci waaye nag du farfoos mën nga koo génne ci catégorie ga nga xam ne moo gën a yemamaay ba tey gën a baax kon loolu ay teggin la mu ne ñetteel ba mooy sutura boo koy joxe boo koy joxe nga bañ koo joxe ci loo xam nit ñi dañ koy yëg na ko joxe ci ak nëbbu suturaal ñi nga xam ne dañ leen koy jox suturaal sa bopp yi ngir kat nga bañ cee jële ak ngistal wala lenn yi nga xam dafay yàq diine yàq ak jaamu yàlla nga bañ ko cee jële kon nëbb gi lu am solo waaye nag bu fekkee tamit ne joxe gi man nga koo joxe ci kaw nit ñi gis ko ndax ñenn ñi nga xamee ne daaw ñu génne asaka ñu génne asaka wala ñi daan génne asaka te sawaruñ ci tamit ñu xam ne génne asaka lu war la ñu sawar ci ndax sa jëf joojee kon ba tey it loolu lu baax la kon loolu mooy ñett yi nga xamee ne mooy teggini génne asaka kon loolu mooy farataay joxe asaka ay soppam maanaam ay yoo xam ne ni ay teggin la daal kon moom amut ay ay amut loo xam ni sunna la kon te ay kii rek la am ay farata rek la am kon nag loolu mooy asaka bu nee nag asaka ji nga xam ne dañ koy génne ci lu mel ni ay pepp ak yu mel noonu balaa nga koo génne faaw nga xaar ba mat ñetti juróom benni bërigo juróom benni bërigo bu matee juróom benni bërigo nga xaaj ko fukki xaaj xaaj bu mujj ba nga génne ci asaka bu dee nag mbay mi nga doon bay ci taw bi nga doon bay maanaam taw bi mu doon taw di dundal gàncax li ngay bay booba waa ci ngay génnee fukki kaar ngay def mbir mi génne kaar bu mujj ba joxe ko bu dee nag yow yaa doon bayal sa bopp maanaam yaa doon arroser sa bopp ci wàllu ndox ak yu mel noonu boobaa dangay xaaj mbir mi fukki xaaj boo ko xaajee fukki xaaj xaaj bu mujj ba nga war na joxe danga koy xaaj ki digg bi joxe xaaj ba waaw yooyu tamit faaw mat ñu saab nga door a génne yëpp moo xam alal la moo xam lu ñuy bay la moo xam yooyu yëpp faaw mu mat nga door di génne bu dee alal nag bu matee ni koy génnee mooy da ngay xaaj moom it fukki xaaj alal yi xaal xaaj bu mujj ba nga jël ko xaajaat ko ñeenti xaaj jël benn xaaj ba joxe ko loolu nag mën nga koo nattale ci ci ne million bu nekk juróomi junni moo cay génn million bu nekk juróomi junni moo cay génn kon loolu boo ko xoolee mooy nga xaaj alal ji fukki xaaj xaaj bu mujj ba nga jël ko xaaj ko ñeenti xaaj génne benn xaaj boo bëggee tamit kalkin kalkin bu gaaw boo xamee ne du jar sax ngay xaaj fukki xaaj yooyu dangay jël alal yépp teg ko xaaj ko ñeent fukki xaaj boo ko xaajee ñeent fukki xaaj jël benn xaaj ba génne ko kon loolu boo ko xoolee moog lee benn rek lay doon ndax ci misaal bu doon million nga xaaj million bi ñeent fukki xaaj mooy nekk vingt cinq mille bi kon day tollook nga xaajoon ko fukki xaaj génne ñeenteelu xaaj ba xaajaat ko ñeenti xaaj génne ñeenteel kon loolu lay tolloo kon nag loolu moo nekkoon suñu bindu tey li ñu amoon ci waxtu jeex na ñu ngi nuyu ñëpp di baal ñëpp xaq wax ne lu fi jub ci suñu borom la lu fi dëng ci suñu jëm yu xeeb yi la ñu ngi jéggalu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm in uridu ilal islaaha masataxtu ma tawfiqi illa billah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa sëriñ bi dañu sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey